njaboot gi eh, am ñu ci wàññeeku ñu toll ci limuk ñett eh, wuyu ji seeni boroom eh, ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla xare aljanna yegg si nañ nag ngir gunge leen ci cérémonie funéraire bi ànd kook soppe yi kook taalibe ñuy euh, fàttali ni euh, euh, Chérif malik Thiawlaay moo noppalu ak ñaari sëram mu di soxna ay seen Thiawlaay ak soxna Xadi Thiawlaay ñu leen di jaale xalif bi di leen njaale njaboot gi di ñaan yal na leen yàlla xare aljanna kon ñu bàyyi leen rek ngeen teewlu noonu jotaay bi à temps réel ci li fi xew fii ci Cambérène doon muñ ba yàlla jéppal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu cheikh dafa wax ne Baye Mouhamadou Lamine Sang bi nañu ñaan Khalifa Sall ndax lépp lu ñu xewle mu ngi ci nee na nga ñaanal monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye mhm. Diouf Sarr ndax xadi kankat ndax xadi an ndax xadi an day ci faj suba gi la ko def ci mhm. suba gi la ko def mu xat lool mu mhm. xat lool mu am ci taxawaay bu am solo mu am ci moom taxawaay bu am solo ba ñu mën ci jot ba ñu mën cee jot kon loolu laa la doon nee na kon loolu rek la la doon wax ngi leen di ñaanal nee na sang bi nee na kon ñu ngi leen di ñaanal xabroom ba doy na leen ab ñaanukaay lu ngeen fa ñaan da ngeen nee na xabroom bii waykat bi nee na doy nanu ab ñaanukaay luñ fi ñaan mu am wallaahi sunu sunu yor-yor bii. nee na kon suñu yor-yor bii. na si yàlla defar sunu adduna defar si sunu yàlla def sunu adduna sawe réew mi sawe réew mi sawe addina sawe adduna wàccee fi xéewal wàccee fi xéewal delloo ci xol yi ci xol ak yaakaar yàlla ak yaakaar baay Babacar daana wax ne ndax maam Babacar laay daana wax ne booy yaakaar booy yaakaar yaakaaral yàlla ragal booy ragal ragalal yàlla daana wax ne daana wax ne man de Babacar laay man de Babacar laay li ma ragal li ma ragal mooy dogalab sama borom dogalab bu yàlla dogale nee bu yàlla dogalee li may am am am li may am am am nangu ñaan nangu la yàlla dogal la si dara mënuma moo tax yàlla dogal moo tax li yàlla dogal si dara mënunu si dara lu dul nangu ko lu dul nangu ak ñaan yàlla ak ñaan yàlla wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum wa rahmatulahi amin ya rabbal amiin amiin ñaan jëmale ko ci ñetti ñi noppalu di njabootu xalif gi nga xamante ni xalif soxna Cawlaay ñaar ñi démb lañ noppalu kenn ki euh, tey la noppalu ci euh, suba si mu di tiis woo xamante ne nii dalatina ci kaw islam euh, rawatina ci Sénégal ak njabootu Baay gi yëpp nuy ñaanal xalif gi mu yàgg lool te kàddu yooyu ngeen dégg kon kàddu ga ñaan gi ñu leen di fàttali ñu ngi fii ca Cambérène ci dëj ñetti njabootu xalif gi nga xamante ni noppalu nañ kon mbokk yi nu am ay réaction rek ci njaboot gi ginnaaw. tiis gi ñett ci njabootu euh, xalif gi daal noppalu euh, sëriñ bi ginnaaw bi euh, sëriñ Mouhamadou Lamine tëjee ñaan wi yéen ngeen nekk ci njaboot gi tiis wi dal njaboot gi ñu leen bàyyi rek ngeen sànni ci ay kaddu seen njàngat gi ngeen ci am. waaw bisimilahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaan rajim laa eh, sant yàlla bu baax waa li nga gis ni tey ngeen ñëw fi muy tiis woo xam ni dal na ci kaw xalifatal muslimin muy Baye Abdoulaye man nañ wax ni euh, chiffre trois dafa taxaw ci kër Seydina Limaamu bu njëkk bi jamonoy Seydina mu peste amoon na si la ku ñuy waxee yaa tut si la yaayu Seydina Babacar faatu woon ci ak ñeneen ña ñu dem 1914 peste ñëwaat ci jamonoy baayam muy xabru bi ngeen jàkkaarlu muy Seydina Issa Rohou Laye muy bàyyi sur Abdoulaye xalifa bi toog yàlla daal indi pest ñu jëlee. jam yàlla ya nekkoon ca Ndingala démb maanaam Cambérène gu njëkk a ci Cambérène ak tey gii ñu ñëw ci atum ñaari junni ak ñaar fukk muy 2020 peste daal di ñëwaat mi mbas mi muy li nga xamante mooy Covid 19 am ci jamono tiis wàcce si tiis wi dalaat encore ci bay Abdoulahi muy li nga xamante ni ñetti doomam yoo xamante ni génn nañ ci àddina muy taawam bu jigéen soxna ay Sène Thiaw ak doomam bu góor bu ñuy wax Chérif Malick Thiaw kon nekkoon ca Bargny ak doomam bu jigéen bu ñuy wax Soxna Khady Kane Laye nekk ca Gorom ñaar ñi kii mi ngi faatu ku góor ki 18 heures keneen ki après geewee mu ne tuut bi ñu toogee ba xëy suba gi ñu tàggeewaat nu beneen doomam bu jigéen bi muy ñetteel bi doom bi kon nag tiis boo doon wax tey boo doon xool ci àdduna tey wala nga koy xool ci Sénégal e boo ko dee compté du benn du ñaar boo xam ni fii daal la musa dal muy tal xalifa bi ñu koy massaw moom mi mu dal nag moo nu gën a xam yàlla gën nu bëgg yàlla gën nu gëm yàlla te moo nu dàq muñ fuuf moo nu dàq muñ fuuf ñu koy ñaanal lii yàlla na ko dëddoog jàmm mu doon xéewal ci moom moom Baye Abdoulaye mu baawaan ci mboolem mbooleem axlu bayti rasool gi yëpp di ko ñaanal wér gis nga nin tënk si biir tey jii ñu leen denc ci biir mausolée bi ci xabru Seydina Issa bëggoon ñëw sax waaw xabru bi ñu ngi leen dëcc ci mosale Seydina Issa Rohou Laye ndax njabootu Seydina Limaamu la donc loolu sant yàlla di ñaan yàlla nanu yàlla yàlla fayal Baye Laye ñaan Baye Abdoulaye mu yàgg fi wasalaamaaleykum Pape Ibrahima jong nekk chanteur principal de la communauté Layène. tabarakallah mu nekkoon Pape Ibrahima Diong nekk chanteur communauté Layène bi doon. joxe ay kàdduk seede nu ngeeg sunu beneen papa ginnaaw li fi waaw alaay Seydina Issa Laye laay Diop war yëkkati ay kàddu jëmale ko ci bésu tiis gii nga xamante ni dal na ci njabootu Baye Laye bi waaye dal na ci kaw islam papa bismillah waaw ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa di julli ci maam Baye Laye Seydi awalin wala axirin di wax ne moom suñ borom ba ci moom lañ jóge waaye ci moom la ñuy dellu yàlla nag ci dogalam moo dajale ñett ñiy bokk benn baay te bokkuñu ay dëkk yu nu nekk bokkuñu ay feebar yu leen dal yàlla booye leen ci benn bés muy bésub altine bii nga xam ne seen maam ji ñu ko uufal yonte yàlla Issa Rohou Laye le 21 août 1949 la nuit du dimanche au lundi lañ ko dencoon fii tey ñetti sëtam yi bokk bésub altine boobu ñu uufal leen fii ci biir kii nga xam ne moom la ñuy wax euh, Malick caw mu nga féete woon Bargny waaye jigéenam bi mu bokkal ndey ak baay ñu di ko wax xadi aan caw mu nga dëkkoon gorom di fa sëy kii nga xam ne moom la wax ay seen caw mooy taawu xalifatul muslimin di magu Seydina Laay mi ñëpp min moom ti bokk ak moom ndey ak baay mu ngi nekkoon fii ci Cambérène kon tëddandoowuñu bokkuñu ay feebar bokkuñu ay dëkk waaye yàlla moo leen boole ci benn bés ñu wuy ji seen borom axlulaay gépp ci njiital sëñ Mamadou Lamine Laye rakku xalifa bi ànd ak rakkam maam Libaas Laay ak doom yeeg jarbaat yeeg mboolem ahlu bayt Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam ñu denc leen fii ci Cambérène ci jàmmalaay Seydina Issa Rohou Wala alayhi salaam ku góor ki moom lañu ñu uufal ci wetu géej mu feggo ak Massar caw bàmmeel ñaar ñu jigéen ñi kii ay seen mi féete mag moo ci bàjjanam Adama Seeni caw ñu teg xadi aan tew ci penkoom waaye lépp ci wet gi jigéen ñi fekk féete côté euh, ndakaaru kon nag ñun dañ ci sant yàlla ndax tur wi nga xam ne mooy turu yàlla wiñ leen sange turu yàlla woowu lañ leen gunge moom lañ leen jullee moom lañ leen dence ndax maam Baay alayhi moo ñu jox loolu ba tax na ngëm gu mat sëkk la ñuy doyloo di sant suñu borom subhaanahu wa taala ci ay dogalam donte dogal bi dafa tiis ñu xam ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ok xew-xew islaam gu am rek rawatina tiis wi am lu mu ciy jànge ginnaaw bi sëriñ Mouhamadou Lamine Thiaw Laay yëkkatee ay tey lan la ñu mën a jànge mu di tomb gu wees goo xam ne daanu ko am ci lii xew ah liñ ciy jànge de mooy liñ daan jànge toujours rek maanaam lii waaraate mënu koo weesu koo nekk ndooloon àdduna di ko gis mu lay gis muy jëf ngay jëf suñu borom ba dogal tey mu xëy dëddu la ñu dugal ko ci bàmmeel dem dañuy ñaan mu soreyantoo waaye du jaas ci kenn ndax kenn ku nekk ab kaasam la ñoom seen kaas la ñu naan ñun suñu kaas nga fay xaar yàlla na yeex kon kenn ku nekk dafa war a xam ne lii mu yéex mbaa mu bañ a yéex loolu yëpp benn daytuwaay delluwaay lay am mooy ñun jëm ci suñu borom la dellu ndax day faatoo ndaw nit day faatoo mag nit day faatoo ci feebar nit day faatoo ci ñàkk feebar waaye maam Baay Laay alayhi salaatu wasalaam xoon na ne mujjug jamono déegi day bari te yaakaar naa ne foofu lañu toll waaye tamit al mawtu laa yaati ila baxtatan yàlla subhaanahu wa taala dafa bind euh, xalaxal mawtu wal ayaati lépp lu ko moo ayu ko moo axsanu amalan kon dee la jëkk bind su ko bind dund kon loolu lu ñuy war di xëyee la ak di ko gontoo ndax boo xëyee war ngaa xalaat ndax di nga yendu boo tëddee war ngaa xalaat ndax di nga yeew wala daal programme bi nan la nar a tëddee. programme amu ci ndax Baye Laye alayhi dane ku jaal dem yaa ëpp yool ku jaal toog ku jaal toog dem yaa ëpp yool ka fa ndox ku def loolu naan ndox dem moo ëpp yool ka fa lekk kooku moo ëpp yool fa yendu kooku moo ëpp yool fa fanaan mu ne bu leen def ñetti fan bu leen def juróom-ñetti fan. bu leen def ñeent fukki guddi ndax yooyu amalu ndariñ aji dem ji te dina jur ci seeni biir ay xeebante ak nit jéem lu mu mënul ba jël alal joo xam ne ji amaana na mu ko amee def ko ci bés ba ngir bañ koo ko ŋàññ yooyu le moo tax bàyyi laa el sam tere yooyu yëpp ndax amalu njariñ aji dem ji ñun daal dañu daal di def daal di ñaan daal di traçasaw dellu ci ittee loolu la suñu borom ba dogal ci kër bàyyi laa el salaatu tabaarakallah dañuy wéyale témoignage yi rek ci njaboot gi kàddu sunu wéyjur woowu yëkkati am na solo lool lool lool lool kon xanaa rek euh, salaamaaleykum ñu jox leen ñenn ci njaboot gi rek pap euh, ginnaaw gi lii xew ame euh, ñu buggoon ngeen yëkkati kàddu seede rek ci xew-xew gi nga xam ne dal na tey ci njabootu Baay Laay gi. waaw bisimilah fàttali ñu tur wi. Seydina Issa Laye Niang géwlu Seydina Limaamu Laay yal na yàlla sama borom ba yërëm leen te jéggal leen lii dugg ci kër gu ne moo fi nuyoo si dal nag ci kaw kilifa gi. muy Serigne Ablaye kon ci kaw jullit ñoom la dal ndax Serigne Ablaye nekkalu fi tariixa diina la fi nekkal ah kon nag bu li dalee ci kawam jullit ñëpp fàq fi mu ne kenn desul alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant di ñaan yàlla sama borom ba yàlla na app bi seqe day mënul ñàkk waaye yàlla na seqe yen ñi nga xam ni ñëw ngeen pour couvrir li wan ko àjjana bi ndax bu ngeen ko wanee àjjana bi mooy ku ci nekk nekk tàbbal ñam pour mu ñaan yalla yalla sa borom ba nangu ñaan yoy barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam jere jërëjëf dañi euh, dox di wéy rek ak njabot gi ci ay témoignage rek ginnaw bi fi li fi xewé assalamu alaykum pap na ngeen def wala ngeen ñewon ci euh, bés bi ak tiis wi nga xamne dal na njabotu Baay Laay yeb yeen kaddu ngeen di yëkëti jëmele ko ci euh, manam tay ji xew-xew gi fi am ah di sant yàlla julli ci yonent bi di xamni li ndogal bu yalla indi la kenn mënu ci dara ñi ñaan ñaanal yalla xarel na aljana te tax ni seen barke loolu rek la am luñ ci wax vraiment kontaan nañ trop parce que fi xewle say mbokk yëpp ñëw teew vraiment loolu lu neex la ñun ay taalibe la lañ ndigal rek lañ ñuy wéyee moo tax ñëw ci dëj bi jërëjëf. kon dañuy dox di wéy rek xanaa ma feggoog suma beneen papa rek papa asalaamaaleykum. wala tiis wii ñëpp ak yëgandoo xanaa rek nu bàyyi leen rek ngeen jotale seen kàddu njaal rek. waa di wax ni inna ilahi wa inna ilayhi rajiun di jël suñu njaal ñun ñëpp di ko teg ci loxol euh, Seydi Mouhamadou Lamine mi nga xam ni moo fi teewal xalifa bi. mu jàllal ñu suñu xalifa suñu bàyyi suñu yaakaar tey ak bu ëllëgee di bàyyi Abdoulahi Thiaw Laye ayyadahullahu wa nasra natt bi ñëw na waaye nag moom daan na wax ni natt wàllu jullit la mbugal mooy wàllu yeefeer yàlla ñu ci yàlla musal natt bi yàlla ñu yàlla may xol buñ ko muñee ñii dem yàlla na leen yàlla xaroo aljana ñu dëkkaale ak seen maam ca biir jannatal firdawsi wa axiru dawa tey lu nu mën a jàpp rek ci kàddu gi sëriñ Mouhamadou nga xamante moo fi teewaloon njaboot gi tey mu di ak soññe tiirewaat ci ay leçon rek delluwaat ca la ñu sëriñ Ablaye parce que daf ñu doon wax ni waxtasibu bi abdillahi jameen wala tafarraxu ñun nañu ànd ngooyalu ci buumuk suñu borom gi buñ ko defee duñu am duñu am euh, duñu doole mais bu ñu ko defee rek dara dugg suñu diggante kon yàlla bu dara dugg suñu diggante ba ñu gën am force bi jaahi Seydina Issa Rawalaahi yorentub yàlla bi yéen yàlla yàlla fay leen merci beaucoup. merci nekkoon kenn ci suñu kilifa yi teewee euh, jotaay wi doon yëkkati ay euh, kaddu rek di ko jëmale ci bés bi nga xam ne bésu tiis la xanaa rek ñu gën a wéyale njaal wi rek eh, feggoowaat ak sunu beneen wéyjur eh, ñu daat koy ñaan rek eh, mu yëkkati quelque kàddu rek tabarakallah ok baax na ok waaw waaw salaamaaleykum sëñ bi dama bëgg mhm. ñu nar a ngeen laaj leen mhm. mais du jël jël micro mhm. ku nekk da baytu Seydina Limaamu Laay gépp ci góor ak ak ndaw di wax ni lii moom ah, ah, ah, lu metti la ci gis-gis wante dañ ci sant yàlla di ñaan yàlla ci mbaaxam ci teddangam ci yërmandeem mu na ya di Seydina Limaamul Mahdi ak yonent yàlla Isa di wax dëgg yàlla lii moom dal ci sunu kaw dañ ciy sant yàlla bu baax dañ ciy sant yàlla bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla yokk seen leer yeesa seen xeewal ñoo ngi ñaan ñaanal yàlla sang bi di bàyyi Abdullahi ñu koy bamtuwaat yàlla yokk eh, yàggal ko fi yàlla dolli jàmmam yàlla dolli suturaam yàlla yokk ay xéewalam ak ahlu bayti Seydina Limaamu Laahi gépp ci góor ak jigéen ak ndaw ñoo ngi dox daal ñëpp si leen digaale jërë ngeen jëf jërë jëf. kaddu seede yaa ngi noonu tiis na. Eh, lii dal njabootu baay Laye gi waaw ñuy gën a wéyale témoignage yi rek ci njaboot gi fexe kan la ñuy jéem a amaat ngir mu yëkkati ay eh, kàdduk eh, voilà donc waaw baax na kon voilà donc eh, ndax mën nañ am sëñ sëñ ndax bi sëñ baax na waaw ah, kon ñu jéem ko làmb xam waaw salaamaaleykum salaamaaleykum tabarakallah sëñ sëñ bi ñu ngi ziar ah tabarakallah tabarakallah bëggoon kàddu soññ rek jëmale ko ci dal bi kon ñu wéyale waxtaan rek yéen a ngi gis Chérif Ibou Sini Thiawlaay salaamaaleykum sang bi tabarakallah tabarakallah xanaa rek eh, ñuy sàkku kàddu soññi rek ngir xew-xew gi nga xam ne dal ak njaboot gi Abdoulaye bismillah ñu ngi ak Chérif Ibasini Thiawlaay nekk kenn ci njabootu Seydina Limaamu eh, tey yàlla dogal tiis wi dal njaboot gi ñu nekkoon ci cérémonie gi ñu leen di jébbaleeg seen borom xanaa rek ñu bàyyi la kàddu gi sàng bi eh, nga dellu si waat ci xew-xew gi rek ak kàddu soññ yoo xam ne daa ko jëmale ci mbokk jullit yi bismillah xanaa di wax xaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla leen jóge woon fa la ñuy delluwaat te it euh, li ñu ciy jëkk a wax mooy ñu ngi massawu xalifa bi parce que ñetti ba bakkan yi yi rod yëpp njabootam la ñëm ñëpp moo leen jur ku mag ki taawam la ñaar ñi tëdd ñoo bokk ndey ak bàyyi ñuy suñu njaboot di ko jàlle umma islam bi yëpp laay wax parce que sëñ Ablaye ku ko génn ci lislaam xamuloo li xew lii firnde ji mooy doom ju baax ji toog mu ngi tuddee gaynde Fatma sëñ Cheikh doom jee taxaw ma ngi ko tuddee Alaaji Ibu Saaxo Cheikh Tidiane si mi ngi si biir xabru bi ñu sëñ Mansour mi ngi fi keneen nag borom taax mii ngay seen ñu ngi ko tudd Cheikh Abdou Khadir Jeylaani kon ñu ngi massawu umma lislaam bépp mais di ñaanal suñu xalifa Baye Blay Thiaw lii dal ci kawam yàlla na ko yàlla dimbali xam naa ne du dara ca moom bànneex la ci moom te lii ñu dal tamit bànneex la rek di di ko massawu jullitu yàlla yëpp di ñaan ci màgg yàlla ak baax rasul yàlla nee la xaroo àjjana na julli ñuy defaroo rek bokk ndey bokk baay. ci la dikkaat bés bu ne ku déglu see kàddu yaa ngi ci moo innamal mu'minuuna ixwa bi ndax ni nga limee kenn ci njaboot gi ndax kenn ku ci nekk mel na ni am na kër diine gu bokk waaye dara génnul islaam jamono ji coow li day bëri ci luy bëgg a féewale jullit ñi te bu ñu toppee seen i kàddu saa su ne yéen a ngi woote ngir nu bennoo sëñ bi eh, looy dikkaat ci yooyu noonu. jaru de seen bakkan rek la ñuy waxee waaye mag mu toll ni yàlla bu nee. waxtasimu bi xablilaay jami'an wala tafarraqu yéen islam benn buum la nga leen ci bu leen tàqali ko kon ku tàqale xamuloo li xew suñu Ablaay mi nag di xalifa bi njabootam gii rot moom tàqalewul dara jël nay njabootam yii mu tudde leen këru diine yëpp te amoon na ñu mu leen tudde fii waaye kër amul kuy kur amul kuy këru diine suñu Ablaay jëlul cër ba jox la ko Cheikh Mbacke ngi nii di preuve bi Ibou Sakho ma ngi taxawoon fii borom tax mi wax naa la ko léegi mi ngi tudd Cheikh Abdou Khadir Jelaani sëñ Mansour ma ngi ci kër ga ak yeneen ak yeneen li may wax rek mooy juddi ñi nañ bokk ndey bokk bàyyi soppante te yàlla tax bëggante te yàlla tax te li nuy wax ci kaw bàyyi ko li ñuy jëf ci suuf muy jëf ju rafet ñu yéenante jàmm Sëriñ Abdoulaye yàlla fi yàgg xalifa bi yàlla yàlla barkeel barke maam si bàyyi la kàddu gu gi ngay jëmale ci jullit ñi rek ndax xew-xew yi saa su ne bu xewee rek am na lu tax mu xew te am na leçon gin ci war a jàngi sëñ bi euh, yan kàddu ngay yóbbal ci yàlla daf lay wan ni moom mooy buuru boppam rek lii bu nu jaaxalee sa xel bu demee ci Karbala dootu la jaaxal benn tàkkusaan la benn ngoon la ay jullit la woon Ousseynou Hassan jabootu Rasulullaay gépp ci lan daanoo woon kon lii bànneex rek rek lay doon ci ñun na julli ñi tàppoo nekk benn rek bëggante te soppante yàlla rek fi ne kenn newu fi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatu mu nekkoon sunu sëriñ sunu sang Chérif Ibou Sini Thiaw Laye feggoog sunu sëriñ sëriñ Cheikh Mbacke Laye doon yëkkate ay kàddu ko témoignage jëmale ko ci xew-xew gi fi am fii ci eh, maanaam Cambérène dal njabootuk Chérif Abdoulaye Thiaw Laye ñu ñaan yal na leen yàlla xare aljanna yal na yàlla yokk seen leer taas ñu ci seen bark daanaka duñ ci teg dara ndax li sëñ bi wax rek doy na message mu jëm ci ñëpp ñu war kaa jàngee xam ne islam gi benn la njaboot gi benn la ndax ku jël sa njaboot fexe këru diine gu ci nekk nga am fa turandoo kooku moom dundal na islam woote na ni maanaam lépp benn la unité bee fi nekk kon nu gën a wéyale waxtaan wi rek ginnaaw bi sunu sëriñ yëkkatee ay kàddoom rek eh, ci témoignage waa kon dañ ko fi yemale ñu bàyyi sang bi mu daal dee def ñaan eh, ñuy fàttali rek ndax programme bi tey lee yem wala nu mu nar a tëddee kon ñu bàyyi la nga leeralal ñu loolu ndax internet ak ñuy suivre dañ koy soxla te itam après nga tëjee ñaan rek sang bi. waaw bàyyi laay defe noonu dëj dëj ci këram amul ñetti fan amul juróom-ñetti amul ñeent fukki fan. nii nuy rono bi nii nii nu ñaana nii jeex na dañuy ñaan ñëpp mbooloo mi sax day tas dañuy tekki baas yi jeex na yàlla na yàlla yokk xéewali ci gàttal daal Chérif Abdoulaye Thiaw yàlla na fi yàgg ak xalif généraux yëpp yàlla na fi yàgg asalaamaaleykum wa rahmatullah baax na duñ ci teg dara kàddu yaa ngi noonu li sang bi wax rek leen wax rek kon mbokk yi asalaamaaleykum wa ñu leen di fàttali ni ñu ngi woon Cambérène ci lii xew maanaam fii ci tiis goo xam ne dal na islam gi ci ñett ci njabootu bàyyi laay gi noppalu kon mbokk yi euh, maanaam lépp dañ koy yemale tey rek di ñaan yann yàlla yokk seen leer tax ñu seen bàkk yàlla def jàmm Sénégal wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa